de la démocratie sénégalaise et même de la démocratie représentative de façon globale parce que dañu naan askan bi compétence la am man pas si Dominique Rousseau a théorisé théoriser la démocratie continue <laughs> nee na askan bi compétence rek lañ reconnaître mes compétences électorales. maintenant compétence normative reconnaître kuñ ko xam nga li askan

nous améliorer le système de la démocratie représentative, petit à petit vers une démocratie participative. Nous avons une démocratie coopérative, une démocratie collaborative. D'ailleurs, un concept, ce n'est même pas l'État central Parce que aussi, vous faites que de euh, régler le problème hyper-présidentialisme, il faut que nous décentraliser. Question, c'est des gens qui ont dirigé à une région dañuy diriger ay commune ñom ñoy xol naka la gaay di participer woo ci commune parce que ñun sax suñu participation ci commune yi amna na gox yi am mais dess na wax dess na parce que bo xolé Dakar rek nga xol fo xamni fi euh askan bi mën nañ fa dem gis fa seen bop ànd nak ci ki amul Dakar amul parc bo xamni ne ñun ñi mën nañ fa dajé Dakar il y a pas de verdure cest à que te Dakar euh, man

mais dans di Kédougou di leen dina leen mais nan la capacité au niveau de la région de Kédougou au niveau de la ville de Kédougou mu am un pouvoir avec des budgets avec des moyens avec des compétences Nous avons ne des dañ système de transport etc. mais hyper centralisation boobu nga xam ne ci loxo kenn nit lay nekk la donc il faut nous décentraliser Ce yëpp il faut nous voir de façon globale Si on def aussi euh, euh, euh, changement et nous nous ñu de façon globale mais si on koy de façon sectorielle da ngay lekk problèmes. nga problème mais problème c'est des problèmes globaux qu'il faut aborder de façon globale té ñun tamit loolu rek la mëna a wax ah ñun dañu nekk di am suñu ay bëtt mm-hmm. am suñu ay waxtaan am suñu ay liberté yo xamné ne bu ñu gisee loo xam ne lii lañ a def te moy njëriñ vraiment toujours dañ koy wax té di leen di nak dañu bu ñu def ni ñi la doon def. Mm-hmm. waaw parce que am na wax nako ko ministre man dama ci baye xel. mo né humilité ak ouverture wa c'est humilité ak ouverture suñu ko amé je pense que lu bari ci li wut ak li ñuy bëggal réew mi ak liñu bëggal askan dinañ ko am parce que quand même qui euh, qui aussi il, incarne en tant que chef d'État dans son comportement sa façon de parler dans ses relations avec les gens des fait incarner humilité ak ouverture que là c'est extrêmement important que gouvernants yi am attitude bonne yaa ngi koy wax sànq ba tey corniche bi ak littoral bi ñu arrêté woon travaux ñu arrêté sax travaux yi nga xamante ni euh, jot nañ ko fa lancé euh, am sax euh, ñii naan que le premier ministre Ousmane Sonko moo ko digoon askan bi que ni ki tabax ci boobu les corniches quel que soit investissement boo ci munti def bu nekkee li nga def jaaduwul dañ ko war a daaneel bu mel ni yow da nga approuvé boobu léegi. totalement approuvé j'approuve totalement parce que <laughs> man ak ñoom. Bouba Diop ak Marie-Angélique Savané ak le général euh, Sec, Mamadou Seck euh, Omar Nga et puis euh, comment il s'appelle encore mon sax mo nek suñu suñu patron ñun euh, problème littoral bi dañ ci doon liggéey dañ ci doon liggéey bu baax a baax ba gis autorités wax leen waxtaan waxtaan nañu ba ci li tabax fii ci mamel yi donc lii nga xam ne euh, Ousmane Sonko wax na ko gis naa vidéo bi dama ci d'accord totalement te sénégalais yu bëri dañ ci d'accord totalement parce que am na ay endroit ak ay espace kenn waru koo jënd kenn waru koo jaay te ci àdduna yépp boo demee domaine maritime ak littoral ci bokk

nga xam ni léeg-léeg àddina bi bu ñëwee foofu rek ni macha allah am na ñoo xam ne dañu ñëwoon dañu gis littéralu dakaar rek jóge nekk bitim bitim réew nekk ambassadeur wala fonctionnaire international ni moom fii mooy àjjana maa ngi fi toog mais léegi boo xoolee Dakar doo dootoo ko xàmme donc man li mu wax ak nañ raser ak nañ defaraat yépp dama ci d'accord nañu waxtaan seet lu ñu mën a subventionné ñu def ko mais littoral bi

donc littoral bi dañ ko dégager defaraat ko sax par rapport à les les les phénomènes naturels yoo xam ne euh, donc c'est vraiment moi moi li nga xam ne da ngay ans ou 100 ak 100 ans nan lay mel. beneen problème aussi di filao yi même problème environnement lay mais filao yi man xel ni dama génne filao yi boo gisee sax ak poussière bi di dem alors que c'est une fonction fonction naturelle filao yi dañ ko a filaaw yi dañ ko wara yok fofu kenn waru ko dindi naan da koy dang koy def kooku yak bu metti la man et puis man damay duma comprendre loolu motax mané il faut que ñu doli wat ministère de la culture ministère de la culture amatul depuis pratiquement Moustapha Kadem dem paix à son âme Senghor da ko doon wax mais gars yi bi ñu ñëwee administrateur civil yi ni culture amul solo té boy xol même chose la ñuy wax culture nag fële lépp il faut que ñu de delloo culture mu nek un ministère essentiel voilà parce que damay ça, sax ñu ne jeunesse et faut que culture et jeunesse culture et sport Il culture a nga culture. ne moom